dama gis ci ay xar gis ci ay jëmm yu toog fii ay jëmmi engagement ay nit ñu dëpp ay nit ñoo xam ne nii duñ trisé ñoom laa jàkkaarloo tey waaye ay nit yu am fit te dama wax ne waxtu yi ñu toll képp ku def politique ki amoo engagement amoo fit damal nga tëdd sa kër dafa dee xudde waaye il faut ñu wax ca xar kanam ma gis bii ñaari xar kanam laa fi gis am na ay kilifa yoo xam ne fii tey bu ma ko tuddee sëñ Moussa Bousso mii sëñ Ablaye Ndiaye mi ak ñu mel ni ñoom ca dekkal ngor lan woon waaye ba léegi si ci nekkal ngor waaye ñu ngi ànd ak seen ngor ca parti bi jariñu leen dara waaye ma xool ci ñoom engagement ban amoon démb ba tey jii dara saa su loolu mooy jëfi gor man bu dee wax sëñ Modou ay jër ak ay nangam ak yow ay ree damay jàpp ndax ay bu ma xoolee yenn jëmm yi rek dana ma joxaat koraas ma fas yéene waat avancé jëm ci kanam waaye ma xool yeneen jëmm yi kanam. ñoo xam ne nii lépp lu la wax rek dee mu koy di dana wax ne booy ànd àndal ak gor Cheikh Abdoulaye Lahat jàmbaar ji dafa waxoon yàlla wax ko ci alxuraan ak naasu ak xawmu naasu ak xawmu mooy lan képp ko ay tànkam jëm kaw ay tànkam jëm suuf ak boppam jëm kaw kooku naasu la naasu nag lu nekk ma waaye xawul lu mooy li am solo mooy koo xam ne boo peesee jëfi démbam ak jëfi tayam waxi démbam ak waxi tayam boo ko tegee ci balaas bi tolloo ñooñu mooy xaw ci ay xaw ma laa gis fii xaw ma sëñ bi Mohamed sono fi ne ñëpp ma mën a lim seeni tur damay wax ne lii ñu dugg buñ ci arrière parce que dëgg rek ay mujj ca dëgg rek ci leen mën a teg jaar ci ba jox président Macky Sall ndam xam nga nit ñi dañoo dañuy wax naan situation bi situation bi waaye gis nga situation bi nu mën a demee suñ àndee ci lu ci caaxaan ànd ci lu dëgg wallaahi la si am na masala baax na lool. waaye maslaa ci dëkk waaye ana ana solidarité ana lu tax ñuy wax camarade di parti ana li Mouhamed Cissé wax léegi ana lu ñu leen wax léegi nii Serigne Mour Bara Dolly ba mu jegee ci ab lalam di dem ci sous-préfecture di déposer ab ab ab ab autorisation am xalaat bi am ñeneen ñu amee xalaat waaye yàlla dogalee ko mu mu njëkk tàbbi ci man ñu ànd ko man dem déposer ko. boobu xamuñu woon xalaatuñu woon waaye suñ gëm-gëm ak suñ pas-pas ak xool xam ne lii di ñëw fa mu jëm ñun war na loo jël taxaw ñun ñu ànd ak président Macky Sall mais ba fii ñu toll déggoo genn kilifa bu ne ci bi sëñ Modou jërëjëf yi ñu ko àndaloon jërëjëf solidarité yàqal nan la sa sa sa say bureau sëñ Modou naka def ba jàmm xew na fa déggoo kenn ku ma seet si kenn laa wax gisoo kenn ku ma woo téléphone xanaa xam lu ñu wax wóor ko woon a déposé rek day yàq xam nga lan la ñuy wax woote ci kaw naan day yàq ba ci mitinub démb bii xam nga lu mu dem ba jëli ay ay ay ay di ko indi ci seen i euh, auto euh, conférence xam nga lu mu wax ci kaw wax ko nit ñi mooy sëñ Modou lay ñëw pour yàq mitin sëñ Modou dafa mas a yàq mitin du la bokk daal wala yàq bay yàq mitin boo xam ne Benno Bokk Yaakaar ngir yàq sama benn te lenn indi ko lu dul dégg ñu ñii ñoo ñu fi ñii ñoo dégguñu mënutu ñoo supporté loolu mënutu ñoo dégg ñëw di woote ay point de presse di wax ci Ousmane Sonko ana jaan ana ay kilifa ñu ngi fii ma yëkkati kàddu woo leen téléphone man contre ba kenn waaye ci aw jëfin lay contre ba ma leen woowee lépp lu mën a wax dañ ko wax mooy nan bàyyi ba Ousmane Sonko dem ñu jéem a organiser ay meeting man danaa jàkkaarloo ko Ousmane Sonko mu jóg ci sama dëkk may xaar ak di tabale ak di bàyyi naan bu jàllee ma it organiser meeting léegi nag loolee ban ko waxee ma engagé ñoom ñëpp ñu avancé wu ci dëkk bi kenn nekkut fi moo tax tey bu ma dee woonaan ma day wax ci Ousmane Sonko man lu may waxati ci Ousmane Sonko ba jaar ba jaar taxawee naa jàkkaarloo moom jaar dem ma topp ca wetes ma di maa laaj maa laaj gis nga gis nga damay wax de. waxal parce que li am président Macky Sall ñii tey bu tàngee ñooy ñi des ci terrain keneen ku man di doon bu jëkkàngee day yëgëru yëgëru ak biiram toog ci saal. ñeneen ñi kala kala seen tànk toog ci seen saal ci yor seen téléphone. ak seen ak seen mbaxaroom sàmba wala na ko ma sàmba yàlla. ma ne politique bi. su ma ànd ak personne waaye ku may àndal ci dëgg lay àndal la yii ñu fi def di ay soon ma taxawaloon ko ma lànk leen soon yi soon yi amatul xam man dama gëm ne mbir sax bu la jigut bu la jigut bu nga bàyyi ko nit boo demee ay élection législative et perte élection présidentielle perte locale nga perte dem législative perte ca lépp turu son ngay demee nga war a taxawaat ne ah sool bi SOL bii moom naa ko teg seen kàddu rek Farba Ngom moom a wax président na ma sëñ Modou dellul Touba ngeen lu ngeen war a mën a liggéey élection présidentielle ma ñëw dem kër Abdoulaye Dieng defaat ma dem ci kër yi def tournée wër woote sama kër 17 jours ñu taxawal sonn. mais ana kon nan jéem xool waneen façon bu di liggéeyee nan toog ci taabal waxtaan man bis ni ki tey yéen ñi ma jàkkaarloo laa gëm ne yéen bu xeex jotee yéenay xeex leneen la ca ñu jëm ci wax ci tuuti tappale yi ne ci kaw ak ñu koy collaborer ak nit yu ne ci kaw ñu xam dëkk xam li jaadu xam li war a am ca dëgg-dëgg ñu ko réew man sëñ Mourou Bara Dolly Cheikh Abdoulaye Gueye dafa am maa moom ñu jàng doo sama mbokk la munu munu sama xarit la waaye nag man sama xarit ku may àndal dama ko teg ci dëgg biñ ko fi jiitalee kan la jàkkaarloo samay rak pourtant maa fekk sëñ Moussa ci parti bi waaye moom moo a fekk ci parti ma ci xeex ay sëñ Assane Mbacke ñeneen ma jàkkaarloo ñoom ba mu ñëwee président toog ak man waxam man na ma moom laa fi teg dama ko nobal ànd ak moom jàkkaarloog rakk ju ma bokkal ndey bàyyi jàkkaarloog rakk ju ma bokkal benn bàyyi jàkkaarloo ñoom di xeex ak ñoom ngir Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma mu bett élection yi bis ba muy def ndaje dara ndaje sama kër la ko def ma jël un million def ko ci ay reer ba muy dem tàggoog man tëggatoo man benn un mais man parti bi laay xeexal mu gañ mu perte élection yi. man képp maa jëkk ànd ak Abdou Mbacke ñu def recours mu ba koo foqar ci ngir xeexal sama parti foqarti ko ci samay rek pour jox ko moom pourtant pourtant yéen waa dëkk bi da ngeen a xamoon benn benn député élection di yi amoon législative yi moom bu ba mu xamee ne wurtu doo mën a dem wurtu dugg ci liste député ca bu duggoo ci liste député ba mu demee moom ci jëmi boppam tey jii Matar Diop moom waroon naa mën a jàpp beneen député am ci commune bi anuma tey perte nan ko am ku ne mënoon na ko doon ci dëgg dëgg dëgg encore sama mot bi may wax ki la jàppale la xeex ak rakam bu dikkee ba xeex des mu xam ne moom mii moo mën a xeex moom mii moo mën a jàkkaarloog ñi war a jàkkaarloog danga nga ko war a soutenir jàppale ko xam ne yow naka kanam da tëju làqu ci say néeg waaye kay jàkkaarloo gaa yi ñun nii la du keneen soxna Xadi yéen seen taxawaay ba ngeen def seen point de presse di attaqué kan moo leen seen gannaaw personne wax ni mbir mi demee rek Mohamed ba ñuy dajee maa yow Dakar di organiser di xool nan la ñuy def suñu sécurité nan lañ war a mën a jàkkaarloo Ousmane Sonko ma ce que kenn wettali nañu personne personne ñu def li def jàkkaarloog ñun jàkkaarloo jàmbaar yu mel ne maa góor ak ñoom ñi ak ñeneen ak ñeneen rayante si ñu naan leen ay son dugg ñu son di jàppale président Macky Sall ñoom Moussa ñoom ñu añu mais arrête trop c'est nan jéem a ànd nan jéem a booloo waaye ci dëkk beneen bi ci des may sant ñu yor sécurité bi ndax man damay jàngat Ousmane Sonko bi ñu ñëw fii man ñaar naa ci jàngat li ma doon def lépp dafa am jàngat mu ma amoon benn muy war may dëkk ci ndax dafa taxaw wax ci Kër Massar ne yàlla la yaakaar wax ci Kër si Massar ne kenn ku ne sa xalifa nga ci sa biir kër dellu moom ci jëmi boppam. wax demul poroxaan bis bi nga dem poroxaan nii ci mbedd yi di football waaye moom ci boppam mu gëmloo nit ñi ne ab sëriñ wax ca Kër Massar ne képp ku leen joxati ndigal bu leen ko dégg ca baatum ndigal kon moo ko moom murid yi ñoo ko ñoo ko génnee waaye ma xalaat ne kii bu ñëwee ci dëkk bi dafay défier sëñ bi day génnee war may dëkk bi wallaay la si bokk na la ca la tax ma jëg waaye am beneen bu tax ma jëgaat xam nga lan la doon def ci dëkk bi fii fexoon ba deret tuuru fi deret daa bëggoon deret bu bari tuur ci dëkk bu boobaa la bëgg mu am waaye sant nañ bu baax ndokk bi nga xamee ne Antoine Diome am na xalaat ànd koog DG ñu am gëm-gëm am pas-pas fexe ba nga xam ne deret jooju mu bëgg bëgg tuur Touba naxante nanoo xale yi di naxante xale yi ba deri tuuru Touba gis nga man gis nga man du ma wax lu ma gëm du ma ne nit jëf te fekkee ne amoo jërëjëf Antoine Diome liggéey bi mu liggéey Touba bi ak li Ousmane Sonko bëggoon bu jàlloon tey dere dana tuur ci Touba dana waxante ma waxoon rek laay ñu ñëpp nañ tëkkatoo ñun ñëpp nañ ànd waaye nañ ànd ci dëgg tàllal na loxo ñëpp bañu ñu kenn waaye nag li may bañkat mooy nax gone yi nax jigéen ñi loolu moom dutu am gone yi fi ne ak jigéen ñi fi nekk di liggéeyal président Macky Sall nga bëgg leen a lu ñëw nga toog lu ñëw nga jël ko lu ñëw nga dee ci yooyu day jeex wax naa ministère yi démb ci mujj ma wax am ministère na ko bu ngeen di duggati ci dëkk bi wala ngeen fii indi dara na ngeen ñu woo ñu arbitré parce que bu xeex jotee ñun ñii ñooy xeex démb laa ko wax na benn ministre mayatuñu leen ko mayatuñu leen dugg ci dëkk bi woo kenn mu jiital la indi fi dara ab directeur waxu ci waxu leen ñun muy xeex bu boobaa ñu jàkkaar ma yow ak koo mën a doon président nag moom it nag xam na ñaar koy am na ko am na ay yambar yu toog ci seen di naan seen glace di toog ci seen i climatiseur waaye am na góor yoo xam ne ki jigéen yoo xam ne ni dakk nañ seen sër fas yéene jàkkaarloo ak gars yi moom nag mooy xam na muy doxalee ñaar yooyu kooku du ko wax moom mooy xam ne muy doxalee ñaar yooyu ñii ñi fi toog woowu ma kenn di la convaincre wala ma la wax dara danoo dem ba xam ne dëgg rek kay njëkk waaye dëgg rek kay mujj kon dëgg googu ñuy ànd ku ñu ci fekk si ñu ànd ak yow parce que président lii moom wax man keroog ci université xam nga lan la wax Mouhamed jàpp sama loxo bi na man ñëpp nañ la fekk si ci l'essentiel man déggee l'essentiel jooju ba léegi si amuñu jàmm amuñu jàmm boobu tey ma leen di wax ne boo amee sa camarade du parti mu jàkkaarloo ak ak Ousmane Sonko yow da nga koo war a solidarité ak moom da koo war a doole da war a ànd ak moom boo demee ba mënoo ko toog ci sab saal boo génnee li nga war a jërëjëf waaye baatu jërëjëf sax am doo ko ma dégg kenn gënu laa ko rek ndax danoo xamante ci sëñ Bass yàlla yàlla yokk leeram muy nit bu am engagement ci lii lépp mu yàgg na ko wax yàgg na ma ko wax ne lii di am yàgg na ma ko wax kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bañ tudd ci kenn tur loolu bas danaa ci dem tuuti ndax ñun danoo yàgg a wax ne Ousmane Sonko ab salafiste la en tant que kuréel nga xam ne moom laa jiite dama ko yàgg a dénoncé ay at bu benn fan de tooguma ba tey ay maître ture di génn di wax damay yàggat boo duggee YouTube da gis ne yàgg naa ko wax loolee nag moo doon dox tey ba maître Touré yàlla dogal mu feeñal secret ba wax li nga xam ne mooy li nekk ci seen biir article cinq article cinq bu Pastef dem leen ngeen wér ngeen xool waaye gis nga mag yi nekk Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba maam Alaaji Malick ketti waawan maam limaamu Cheikh Ibrahima Niass maam bu Kunta gii naa ko ci yonent bi képp ku yor aw yey aw musiba jëmale ko Sénégal ci sa kaw di këpp loolu yaakaar naa am na ko ko waxoon ci kilifa Tuubaa yi bi laa na wala sëñ ba nee woon képp ku yor sa ko jëlee ci dëkk bii di ci sa kaw di këpp kon ay woowee moo dem tey ba am a jàkkaarloog Sénégal yi naan kenn du jaamu nit kenn du jaamu ab jaamu comme yow mais kan mooy jaamu ku yàlla bu ngeen xëyee ci kan ngeen di julli da ngeen di ci sëñ Tuubaa da ngeen di julli ci maam El Hadj Malick kan ngeen di julli ci yàlla kan ngeen di tudd allahu akbar boobu moom xam nga lan la nokk bi nga xamee ne man nii lépp lu doomi aadama di suul aw ay jëmee ko ci dëkk bi yàlla dana ko suul ma wax ne yéen ndaw yi Sénégal yéen ndaw ñi yéen jigéen ñi jàpp leen ne Ousmane Sonko mii ay doomam nekkul ci kaw télé bi jàpp leen ne Ousmane Sonko mii am neex neex na topp ba coow li am Sénégal nit nag bu toppee am neex neex ba coow am Sénégal bu leen bëggee jaral ay musiba di yéen a koy tey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh